ñuy dund yi nga xam ne euh, moom mooy seen passion de jeunesse y en a qui ont rêvé d'être médecin y en a qui ont rêvé d'être euh, journaliste y en a qui de porter la la la tenue et de servir sous les drapeaux alors yow nga bokk ci ñooñu parce que euh, dans les différentes biographies yi ma lire te concernant euh, vous êtes issu d'une famille euh, avec un ascendant euh, militaire Euh, et vous avez toujours rêvé euh, de porter la, la, la tenue. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on vous prive de l'exercice de l'exercice euh, du métier bi nga xam ne yow moo nekkoon sa sa sa vocation et puis comme nan nga arrivé à te tourner la page à te détacher facilement. madame xam nga man avant may nekk militaire jullit la nit la xam nga loolu laa la expliqué man xam nga yow xamoo ma parce que liggéeyuñu. xam nga pourquoi man tey aujourd'hui fu ma dox damay je relève la tête parce que ñi ma liggéeyal xam naa ne duñu ma juger parce que ils savaient que j'aimais ce travail ce travail là je l'aimais et ñi nekkal même ceux qui moom formé ñi ma liggéeyal mais promos même ñoom bu may liggéey mënuñu ma jot parce que ils savaient que je am xam nga lan mooy expliquer la réaction man par exemple lu xew nii du ko expliquer c'est l'amour que j'avais pour ce travail ce don de soi que j'avais fait pour ma patrie xam nga yow am foo jaar say parents financer say étude nga jàng nga am loo xam ne loolu nga bëgg sa papa jaar si yow nga def ko nga dem ba un certain moment tu sers ta patrie avec ton cœur ay délinquants bëgg la indil ay jafe-jafe c'est-à-dire ils veulent aux yeux des Sénégalais woon beneen facette loolu day tax nit ki am réaction man xam naa tey ñu nekk armée ñoo xam ne bu fekkoon ñoom la daloo tellement dañoo gëm mbir mi ils auraient pu faire plus que ça c'est-à-dire dinañu parce que am loo xam ne bu nekkee sa xol rek am na parce que lii nit mosu ko def boo gisee ma def ko rek ba pare ñu génn ba léegi amul fenn foo xam ne nit day génn gendarmerie ne la mos naa def ni moi j'ai été en deux ans félicité deux fois <laughs> loolu c'est rare nit dina liggéey gendarmerie wala armée ba pare duñu ko mos a félicité moi en deux ans j'ai été à Kédougou si parc bi laa doon fanaan pour def enquête joge foofu ñibbi si Sénégal ñibbi si di moins euh, Dakar dem Thiès def enquête rapidement ma ma ma ñu ñu élucider fa ay affaire on est revenu encore on nous a félicité te en fait c'est pas pour c'est pour wax la rek que mbir mi en fait man ci sama xol laa ko teewoon parce que moi je servais ma patrie je ne servais pas des hommes donc moo am na lu ñu lay traité rek tu prends ça pour de la trahison donc euh, am na loo xam ne. trahi par qui. non mais trahi par je pense que ça c'est c'est il y pas de souci c'est-à-dire en fait. trahi par qui. non non a pas de par ce qui devait voilà. par ñi nga xam ne ñoo la waroon protéger. peut-être on peut on peut le dire ainsi voilà. en c'est c'est ça en fait mais ce travail moi je l'aimais man bu ma jogee fac man boo gisee li ma bind sax da ngay xam ne mois je pourrais avoir mieux que ça mais en fait xam nga les générations actuelles là il faut qu'on nous comprenne nous on ne travaille plus pour il y en a qui le font toujours des exceptions mais si vous allez dans les armées si vous voyez aujourd'hui vous savez quel rang j'ai occupé ma euh, dans ma promo j'étais il naa en a qui sont actuellement mes promos et qui sont mes anciens. Ils sont dix mille fois plus intelligents que moi et ils peuvent t'écrire des textes que tu ne peux pas ah, da ngay yaakaar ne ñii duñu ay militaire c'est-à-dire par ma personne je voudrais qu'on respecte aussi ñu nekk foofu ñu xam ne ñii dañoo joxe seen bopp pour réew mi ñu respecte leen ñu bañ leen dugal ci ay caaxaan yu mel ni voilà c'est c'est mais mais mais mais da nga ne euh, des délinquants ñoom ñoo stoppé euh, ton aventure cette belle aventure au niveau euh, de la de la de la gendarmerie ah. nationale ah. donc euh, tous les actes administratifs mm. qui ont été posés yow da ko assimilé à de la de la délinquance non non en fait ce n'est pas ça madame man du ma wax loolu xam nga comme ni ma la wax xam nga l'autre jour loolu laa Pape Alé Niang ma ne ko man dama doon jàpp ay nit di leen defeere ñu leen di jugé man bu ñu ma appliquer procédure administrative li ma si mën a def mooy c'est-à-dire ut ay recours administratif def ko comprendre mais am na fu mbir mi di jógee dafa am loo xam ne. d'ailleurs déposé nga recours. non déposé woon naa recours mais. Mhm. Euh, cour suprême da ko rejeté moo tax waxuma si ça comme ni ma la wax xam nga boo liggéey si yoon xam nga lan mooy dignité moo tax am na benn jour benn waa ji ne ma. génnal réew mi nga daw ma ne ko man bu ma génnee réew mi fan laa jëm ma ne ko man ma defeere ay nit ñu jàpp leen man ma daw loi ma ne ko man jour bu ñu ma convoqué gendarmerie ñu ne ma 9h30 bu 9h31 jotee ñëw ma. na ma Sénégal yëpp bàyyi parce que dañuy xam ne man gëw ma li ma doon def voilà je ne sais pas si vous comprenez euh, man li ma li ma lay wax man en fait ñun c'est c'est ainsi mais xam nga je ne vais pas vous l'apprendre ouais. l'armée dafa am nu mu organiser woo les corps de, de de défense et de sécurité dafa am une discipline dafa am de règles yi nga xam ne moom moo régir euh, seen comportement mhm. ñoom bu ñuy jël euh, une décision dañ koy jël sur la base gis nga règlement boobu là de la même manière ko su subordonné bi de ko war a respecter de la même manière état bi de ko war a respecter xam nga tey fonctionnaire état état moo ko war a protéger comprendre état moo ma war a protéger man ma liggéeyal état état du c'est pas le gouvernement c'est vous c'est moi c'est vos enfants c'est ma grand-mère c'est ma mère c'est tout le monde vous avez compris moi quand aujourd'hui je sers il faut pas qu'on pense que le gouvernement par exemple de Macky Sall c'est ça l'état xam nga aimer son pays et aimer son gouvernement c'est pas la même chose je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis xam nga man dama nekkoon armée di servir xam nga tey eh, nit ñi dañuy am na média yoo xam ne xam nga ñoom lu ñuy wax li ma def rek mais du ñu wax man lu ñu ma def vous savez en fait ce ce débat là moi je n'aime pas trop y revenir parce que ça me maintient toujours c'est vrai que je ne suis jamais venu à votre télé c'est la première fois laa fi ñëw mais débat bi daf may maintenir envers un point moo tax ba ma demee si yeneen médias yoo xam ne de waxoon naa ko bëgguma si ñëwaat quoi. mais mais mais lan lan la def léegi man tey. non non en fait yëpp xam nañu ko am parce que dañu ma doon xam nga dañu ma doon topp et tout ça loolu yëpp bind naa contrainte bi xam nga ñun armée euh, nan lay doxee tey boo amee jafe-jafe xam nga service intérieur gendarmerie lu mu wax man bu ma amee jafe-jafe damay dem ci sama chef direct ma ne ko diw ah, am naa jafe-jafe bii moom il fait remonter l'information ainsi de suite soit on prend des mesures wala ñu woo la ñu ne lan la mais man dema dem ma wax ko bu ma ko waxee ba pare ñu ne ma bindal ma bind malgré li ma bind lu ma doon affaire mbir mi di continuer léegi lan nga bëgg léegi ma bàyyi après ñu humilier ma que ñu wax Sénégal yëpp diw def na nii diw def na nii ainsi de suite xam nga boo nekkee si état da ngay xam toujours état nu muy fonctionner da ngay egg si mbir si si si niveau de euh, responsabilité xam ne problème bi day am y une confusion xam nga ñun euh, esprit bu ñu amee fonction ku ne boppam rek lay xalaat alors que état bi la war a xalaat c'est-à-dire on doit penser c'est-à-dire à notre